waa Kumba Naar naka dem ba xam dina soppali ko ceeb. eh Caca nekk ah nekk. eh nekk di nekk di nekk di nekk ji nekk. eh nekk eh nekk. di nekk di nekk di nekk di nekk di nekk ji may doy ci yow. mooy nga nekk suba soxna. ay yow naka Espagne ak sedd ba. ah mu ngi sedd guy ma wax dëgg yàlla sedd na trop. trop naa sax nag ma ngay nees. bu baax mu ngay nees moom bu baax a baax. nga ni fii laa wax. dañu xool ci yéen rek ku ci am nijaay ju mel ni. dama ne nijaay mbaay nijaay ju mel ni nijaay aal. la ngay bàkk la ngay bàkk xale yi bëgg nañ ko ta neex. waaw waaw andi na xaalis bu weex tal kii yaay xobu mbanta maare lu mun ta faj amul. fii lañ seet si Cheikh Ndiaye suñu géer ba. waaw toog ca teleem di seetaan teraan sa saalam di seetaan teraan masara. waaw nga ne portable ba coppeet. Eh. dugal sa poos. Hmm. waa kii lay jàngal. nga déglu temps yi ma lay wax. waaw ñu répété mu mokk bu ko defee nga soog a laal sabar yow daal nii rek. boo xamoon ni ma la mere doo taxaw fi naa may ana aal. Ah. ku ma naar sama 1500 laa soxla. yoroon nga. soo téye ci kaw rek ma téye ci suuf. maanaam ma jàngal la bàkk yi. ma yow allé yow lii. rajul géej waay. rajul ndeysaan. rajul rajul rajul rajul rajul rajul eh.

sa jëkkër nii la lay xoolee nii. benn bët waaw <laughs> la xam benn affaire. loolu jël naa ko un million yaa ngi ci kër gi nii tege. sabar yaa ngi marangé jël naa programme bu yàgg. Ah. yow daal del daagu rek nekkal si biir néeg bi seen kër. Ah. suñu kër. maatam Padoor. man galañ nii laa koy téye. nii te yow galañ nii nga koy téye man man ak benn man xama jàngal tëgg. ku la sama jàngal tëgg. man Saliou Ndiaye ma jàngal. maa sax Saliou bokk ndey ak baay. léegi fuñ ko teg. jappalé wo kenn man mi ngay jappalé lolou du dara ci kumba ku la ëppalé dama né bo yow lo koy jappalé yow kumba na yow yaa dellu ginaaw ni lu may baña tuddu ya fi gëna a bop bopp na waaye na nga fexé ba def liñ la bul dog bul wax ku gañe nak di nga am un million ak fukki sabar ak ñaar 1 million yow daal suñu waxé ngay tikkat tikkaré ka jaayo ka defi mbir ah yow sa jëkkër wor ba ngon jot nga defal ko lu sedd mu rek mu noonu tek tek tek tek tek tek que nga ne man bañuma tukki Waye nak jaar ci yoonu suuf xalaatuma dal moy golo di bay bu ndidum yow leer na li ñaxu ba dolay mom la ñepp di sa fen bi métti gogu bu ci dugal góor man xam na la yow sa baxul. na ceeb bi na ma xam ni yow da yàlla tey rek laa mas xam ni lii gars yi di wax am na yónneewul daa ñëwul boppam a enveloppe ba ma ko daan wax sa kaw moom la ne jas na ko jas kaw ko du xam nga ngéwal ah, waaye déglu lii ah. tal sama tax gum ah. tal sama tax gum bu naj xam nga yow baadoola nga yow sàcc nga vëlër nga naafeq nga fenkat nga rambaañ nga jaxasekat nga yàqxatu da nga yow doo nitu dara yaay wuro jaay baraj ar yow loo gëm yow loo ani sa gëm-gëm yow. je le sur la Sainte Marie. li ngay wax gëmoo ci dara. mor bu moom ku ma ko waxoon jar naa xeex lii moom ku ma ko waxoon ma tàkk sa kaw. yow ku ma ana sa ngëm-ngëm lan gëm. liggéey nga ñu sonal nga waa koñ bi yow loo gëm ak yéen seen ngëm-ngëm fu mu ne. Imaam Gueye ñëpp xam nañ gëm-gëm. fii lay ne.